ñetteelu xaaj bi ci ñetti xaaj yi noonu Pierre waar mbooloo mi mu wax yawut yi ne ñoo daaj borom bi yéesu ci bant mu ne leen yàlla moo yónni yéesu ngir mu musal bàkkaarkat yi mu wax leen yeesu def na kéemaan yu bare joxe na misaal yu bare ngir firndeel loolu mu ne leen daaj nañu yéesu ci bant mu dee ci bant bi ni ko yàlla tërale woon yéesu fay na njëgu bàkkaar yépp ba mu mat sëkk gannaaw gi yàlla dekkil na yéesu ca ñetteelu fan wa yeesu daan na seytaane daan bàkkaar ak dee mu ne leen yonent yàlla daawuda waxoon na ko lu yàgg ba mu ne ndaxte doo bàyyi sama ruu ci barsàq te doo seetaan sa waaju sell mu yàqu jëf ya saar ñaar aaya ñaar fukk ak juróom ñaar daawuda waxul woon boppam daawuda dee na te ay yaxam ñu ngi ba tey jii ci bàmmeelam ab sëtam la doon wax moom mi yàlla waxoon ne dina wuutu daawuda bés ci nguuram daawuda gisoon na ci jamono yooyu ndekkitelu yesu kirist daawuda wax na itam boroom bi wax na sama boroom toogal ci sama ndeyjoor ba karaa may daaneel say noon ci sa kanam jëf ya saar ñaar aaya fanweer ak ñeent ak aaya fanweer juróom daawuda yéesu la doon wax moom mi yëg asamaan te toog ci ndeyjooru yàlla kon yàlla moo yéegal yéesu mi ñu daajoon ci bant mu di sang bi di musalkat bi nit ñu bare gëm li ñu dégg ñuy laaj lan lañu war a def Pierre tontu leen ne tuub seeni bàkkaar te kenn ku nekk ci yéen ñu sëb ko ci ndox ci turu Yesu Kirist noonu yàlla dina leen baal seeni bàkkaar te may leen xel mu sell mi jëf ya saar ñaar aaya fanweer ak Pierre di leen waar ak di leen artu ngir ñu tuub ñu soob ci ndox ñi déggoon wax ji te nangu ko bés boobu soob nañu ci ndox lu tolloog ñetti junniy nit léegi am na ay laaj juróom bi Pierre waxee Yeesu mooy borom bi ak almasi bi loolu lan la tekki mu ngi tekki ne Yesu Kirist mooy sëriñ bu mag bi tuur na deretam ngir mu fey sunuy bàkkaar ba mu mat yéesu moo tax nu mën a dem ca kanamu yàlla mu ngi tekki ne yàlla jox na yéesu sañ ci kaw asamaan ak ci kaw suuf mu ngi tekki itam ne borom bi yéesu mooy buur mu ngi toog ci ndeyjooru yàlla yéesu mooy buuru buur yi juróom lan la Pierre tontu nit ñi bi ñu laajee lan lañu war a def. Pierre tontu na leen. tuub leen seeni bakkaar te kenn ku nekk ci yéen ñu sóob ko ci ndox ci tuuru Yesu Kirist. jëf ya saar ñaar. aaya fanweer ak juróom suñu ko defee lan la Pierre wax ne yàlla dina leen ko may nee na noonu yàlla dina leen baal seeni bakkaar te may leen xel mu sell mi jëf ya saar aaya fanweer ak juróom kan moo woon nit ñi ne bàkkaarkat lañu xel mu sell mi moo leen won ne bàkkaarkat lañu yeesu nee na bu xel mu sell mi ñëwee dina nangaloo nit ñi ne bàkkaarkat lañu xel mu sell mi dina leen won itam ne yéesu rek moo leen mën a musal ci bàkkaar ndaxte mooy doomu yàlla ci bësu Pentecôte ñu bare nangu woon nañu ne bàkkaarkat lañu fukk lu tax nit ñi ci ndox loolu wone na nangu nañu ne bàkkaarkat lañu nangu nañu ne deewug yeesu mooy peyug seeni bàkkaar fukk lan moo dal piyeer ba mu soppi dafa jëkkoon a tiit ba weddi yéesu ñetti yoon waaye léegi wax na ak fit xel mu sell mi feesoon na ko te may ko doole fukk ñaar ci seen xalaat naka la nit ki mën a nekke taalibe yéesu nit ki war na tuub ay bakkaaram te nangu ne deewu yéesu fay na leen ak ñett ci seen xalaat lan mooy dal nit ki nangu ne yéesu mooy musalkatam boo nangoo ne yéesu mooy sa musalkat xel mu sell mi dina ñëw dund ci sa xol ca saasa sa yaram dina doon këru yàlla fii ci kaw suuf maanaam yàlla dafay dëkk si ci yow noonu bokk nga ci mbooloom ñi gëm Yeesu. fii la nettali bi yem.